te bu ñu amee temps donc euh, Khadija bu féké rek mën nga ñu dikkal ci li nga xamné rek moom mooy revue des titres bi li gëna fess ci euh, xëtu yéenekaay li ñu dal di koy euh, tambalé à révélation jërëjëf soxna Sali Diouf ginnaaw bi ñu jógee yéen ci premier pàcc bi fas yéene dikk ak yéen seen ñaareelu pàcc. Mhm. di révélation quotidien escroquerie foncière à Kaolack. Nous Modou Ndiaye euh, Rahman sauvé de justice de la prison de justesse de euh, de la prison mhm. waaye foofule euh, ci un festival du cousinage à plaisanterie mhm. une forte délégation de la cour royale de Bignona a fait le déplacement d'accord avons dit que que ak yéen ci libération monsieur Mbaye traîne le Conseil de l'ordre devant la Cour d'appel, mhm. sa candidature écartée pour la succession du bâtonnet. waaye tamit euh, ñu prolongation de l'affaire portant sur un détournement de près de 2 milliards mhm. le parquet fouille la caisse de sécurité sociale tamit ñu wax ci euh, son excellence président Bassirou Diomaye je n'ai trouvé aucun fonds politique tout a été consommé nous avons trouvé une situation difficile les indicateurs étaient au rouge à l'orange ba tey l'un des meilleurs premiers ministres de l'histoire euh, du Sénégal Mbokini Dari euh, euh, l'observateur Jomay le goût de la première le temps fort du face à face avec les journalistes expert en communication et analytique politique, décrypte les succès et les échecs. muy xamle la vérité euh, sur les fonds politiques waaye Bougane euh, li mu ci wax rek mu ne nee na euh, Bougane nee di président Bassirou Diomaye Faye kàddu yële mu yëkkati woon ci conférence de presse bi dafa mel ni rek dicté la def ñu daal di ak yéen euh, ci l'évidence face à face avec la presse Bass assure et rassure Bougane mu qui vaar ki nga président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sans aux affaires Nous avons di que Adjim Bengan, sur la sortie président Bassirou Diomaye Diakhar Faye il reconnaît la pertinence du PSE et le travail remarqué euh, de son prédécesseur mbokk ñu daal euh, euh, source A les magistrats choqués rek que le président Bassirou Diomaye mu pour xam argument mais nous le rek euh, du la ce qui n'a pas été le cas il y a beaucoup de contradictions dans leur dire son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye la presse bi mu dicté kase la mbokki ñu daali dik ak yeen ci euh, bis bi euh, le jour Diomaye sert son couscous entretien avec euh, la presse waaye néna ki nga xamé ni que son premier ministre du Sonko ne fera plus sa DPG populaire accord sur la mise à jour du règlement intérieur waaye it mu ngi le PM e doit non seulement loger mon fauteuil mais il doit le regarder. Miniwarit, je n'ai trouvé dans les fonds politiques. Waye ci ay cadre Mamadou Ibra journaliste bobu mu ngi xam ne rek Macky Sall est interpellé sur les fonds politiques Waye ki nga que moy Mimi Touré mu ngi wax ki nga xam euh, moy euh, président Bassirou Diomaye Faye euh, ouvert serein et rassurant mbokk yi ñu daal di dikk ak yéen ci tribune. Euh, Bougane liste les cafards de Diomaye Bougane Mugilim, Mboutou, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Dari, yi ni euh, Walf Quotidien face à face avec la presse Diomaye sans phare Bougane déconstruit tout les acteurs du système sont au pouvoir les marchands ambulants ont contribué au départ de Macky ñi daal dit que ak yéen euh, ci euh, Les Échos moom lañ koy tëjee Diomaye déballe et défend son corps. waaye Bougan parle de son show Baye Baye une dictée préparée la paire prépare une riposte de de feu. soxna Sali Diouf loolu moo nekkoon seen euh, revue des têtes merci beaucoup euh, Khadija ci euh, revue des titres bi dal di ñuy euh, dëtmal li gëna a ci xëtu kay li donc ban jangat way tam yan ponku ñoo leen gën soxal ci li nga xam mom moy revue des titres bi ah merci beaucoup Sally mhm. avant ñuy démarrer me profiter occasion mhm. souhaiter un joyeux anniversaire au premier ministre sénégalaise muy euh, Ousmane Sonko euh diko ñaanal que yenn wuñ ko yenn c'est vrai que yenn bu dis la yalla yombalal koko am ci ndam ndax bu ndam Sénégal am ndam euh, wax chaque jour rek euh, Ousmane Sonko que tu l'aimes ou pas es politique du Sénégal su yamone mon mom donc dans l'histoire du Sénégal voir les politique donc forcément di nga wax euh, Ousmane Sonko et ça euh, nga bëgg ak nga bañ mo ci yam euh, mën nga baña and ak mom gis-gis comme nima ko waxé saa su ne nga baña and ak mom ci ay valeur mais di nga xam au moins quand même c'est un grand homme du politique au Sénégal bi et il essaie quand même de faire des choses ñu ngi koy euh, souhaiter joyeux anniversaire di ñaan aussi que anniversaire mais aussi nek euh, une pousse de maturité mhm. euh, ci moom pour quand même fu réew mi bëgg a àgg tey ak yéene gi sénégalais am espoir bu ñu am jox ba jox aussi mhm. seen yaakaar bañ see tas ci revue des titres daanaka booy hall, liñ ci mën a jàpp déclaration

am na ñoo xamante ne dañu approuvé à 100%, pour cent maanaam d'accord à 100% pour cent lu euh, Bassirou Diamaye fay wax mm-hmm. euh, y a certains aussi euh, comme le journaliste et par ailleurs homme politique Mamadou Ibra Kane mm-hmm. euh, ci ci ci li mu wax def na am na journal bu ko bind xaw ma mm-hmm. bés bi la xaw ma ba muy interpeller le chef de l'État euh, parce que dafa defoon même moom def na tweet ba ne ci li Diomaye wax ci fekkul fonds politique ak yooyu noonu fekkul dara ci kees gi mhm. bon dafa interpeller le chef de l'État avec ak aussi les contrats yi mu wax ne nit ñi dañu précipité woon pour signer ko